te suba l'histoire retiendra Bassirou moo war a yeewu Jomaay moo war a yeewu ci nelaw yi mu nekk di nalaw géntam yii la war a arrêté jóg yeewu góor yàlla la màndaawam bii bu ci góorgóorluwul i sottira de pale palais tristement parce que du fi bàyyi dara lu Sénégalais yi mën a jàpp Sénégalais yi dañuy jàpp rek ne benn pantin lañ dugaloon ci palais présidentiel bi te Bassirou lu ko yàlla defaral yow 44 ans nga plafonné ban post moo amati après premier après président de la république ci àddina ban post moo amati amatul poste Bassirou bala ngaa dugg palais présidentiel. amoon ay mosoo am milliards te léegi ay milliards léegi Bassirou ne parle plus en termes de millions il parle en termes de milliards loolu yàlla la ngay xale bu tuuti nekkoon ci ruq impôt domaine yi musu musu leen am ñoom ñii ñii jiite réew mi tey kenn su ñoom musul am bureau boo xam ne yaa ko moom sa bopp yow yaa ko di caabi di ubbi di di ubbi di tëj musuñu ko am bureau comment lañ doon am tay Bassirou ngay trôner à la tête du monde parce que tu parles aux grands de ce monde accéder ci niveau boo xam ne mosoo imaginer Bassirou Diomaye fay mo ma wax son rêve n'a jamais été d'être président de la République du Sénégal ça c'était le rêve de Sonko Bassirou xëy ambition bu gëna a mo mo moo moo premier ministre Sonko te Bassirou Diomaye fay bu euh, histoire ëlbatiku won Sonko nek président de la République Bassirou nek premier ministre du Sénégal Bassirou aurait été un excellent premier ministre il n'allait pas se comporter euh, aussi salement que le fait Sonko def le malheur nak que Bassirou du meuna du meuna gérer Sonko ne souffre pas de partager le pouvoir et la lumière Sonko ci ci olof du bokk buzz buzz bi na ko téyeeg moom lumière bi na ñëw ci moom projecteur na ñëw ci moom bugg ci doon dendandoo buggul benn dendandoo c'est un mégalo narcissique bëggul dendandoo bëggu ko Bassirou bu nekkoon premier ministre am Sonko mu toog palais mooy contrôler mooy kon di contrôler lépp mais Bassirou en tant que premier ministre c'est pas un assoiffé assoiffé de pouvoir c'est pas un assoiffé c'est pas un assoiffé du pouvoir Bassirou Jamai. fay amul tamit le culte de la personnalité Bisonko. Sonko am Bassirou n'aime pas les spotlights comme Sonko l'aime c'est pas quelqu'un qui a envie d'être une, star mon Bassirou Diomaye Faye non wax dëgg yàlla nit ku baax la moom Bassirou Diomaye fay nit ku baax la man du ma bëgg ko bon moo tax bëgguma Sonko parce que baaxul mais Bassirou Diomaye Faye nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku baax la preuve bi rek mooy ñi ko xam ak ñi nga xamul ñëpp boo leen tegalee Bassirou Diomaye Faye tegaleen Ousmane Sonko ñëpp ci Bassirou lañ jëm ndax ñëpp a ko ñimantal ñëpp ko yërëm ñëpp ko yéene jàmm ñëpp a ko yéene lu baax ndax xol ba rafet la yow dafa yaru nit ku yar la ku am yar la Bassirou Diomaye fay ku am yar la moo tax yàlla juumul ci ni mu tànnee Bassirou Diomaye fay te yàlla xam nga du juum Bassirou moo gëmagul boppam ñun suñ benn problème benn benn problème la Sénégal am actuellement mooy Bassirou Diomaye fay moo gëmul boppam bu Bassirou Diomaye Faye gëmoon boppam ba dëggal boppam Sénégal kenn du jooy ndax Bassirou rek mën naa freiné Sonko mais moo nommé Sonko Sonko et non l'inverse mais Bass gëmul loolu gëmul ne yàlla sunu borom bi moo ko fal gëmu ko il croit être redevable à Sonko. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce qui nous arrive là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Tay jii bu bopam. fait ak Sonko ne yow sama nga mais ci gouvernement li yëfu réew la moi j'ai adoré cette phrase de Macky Sall ba dogu doog bien que il l'a euh, il ne l'a pas respecté son slogan de départ la patrie avant le parti bas non la waron démé non la waroon doxee waaye doxewu ni tay basir bis bu deugalé bopom. bis bu deugalé bopom, mom bas tay bu deugalé bopom. ba jàkkaarloo bu dëgalee bu dëgalee boppam ba jàkkaarloo euh, ak euh, Ousmane ko jàkkaarloo bi nag waxin la déggin la laaj neew ma jàkkaarloo ci raak déedéet waaye jàkkaarloo moom ne ko xam nga lu ma la yëgal demal nga toog Ousmane demal nga toog man may président de la république du Sénégal yow tu es mon premier ministre <laughs> mais ko day réglé Tepp tepp yi ko nek ci town bi Torturer bimu ñuy torturer ni ñun ni ñu sénégalais yi ni ñu ko di torturer ni. mais Bassirou la neex motax tax Bassirou moo ñu ñun bañu ñu Macky Sall saraxee ñaari xalé yi. mais Bassirou Diomaye Faye moo ñu doggali moo tax ñun kan moo ñu gën a ñun wa Sénégal mais ku ñu gën a sonn ñun kenn gënuñu sonn ñoo gën a sonn ñëpp dañoo am ñaar ñu ñu ñu saraxe Macky Sall danoo saraxe àddina dañoo Macky Sall dafa ñoo jébbal dafa ñoo jébbal Ousmane Sonko du mën na sax ñaari booy waxin la ñaari booy waxin la dégg la laaj Bassirou Diomaye Faye doorul fayiwul puusul paasul àttewul xeex loolooy dëgg Bassirou Diomaye Faye puusul paasul attewul xeex yëgul fuy metti muumin la rek nii benn muumin la rek bu ñu teg noonu pale waaw benn muumin la rek ndeysaan bu ñu teg pale nii teg ko nii pale vraiment mu toog nii rek comme saa Sonko bu xëyee suba toj réew bu bu namee nag comme ni ma waxee rek dëbb réew mi Moulinex jël jël réew mi dugal ko ci ci euh, kii Moulinex mixeur mixeur réew mi ba réew mi nekk benn poudre ñu xam danaa ëf ñu naaw day dégager bas ne ko dama tamaambaalu ji bas bas euh, va jouer dehors là va va va jouer dehors bas mumin bi daw di arroser ay fleur rek di tamaambaalu di taxawaalu yàq yàqaale en passant bas yàqaale sunu su sunu xaalis si ay jaarew ci ay kérosène nag yooyu mais bas mérite mieux que ça Bassirou Diomaye Faye mérite mieux que le rôle qu'il est en train qu'il par Sonko et que le, rôle qu'il est en train de jouer. Parce que Bassirou Diomaye est entré par la grande porte de l'histoire du Sénégal. Mais vous continuez ni, il va en sortir par la petite porte. Parce que qu'est-ce que les Sénégalais vont retenir de Bassirou Diomaye Faye C'est une question principielle, pas principale, principielle qu'il faut se poser. et cette question laa kan moo war a kan moo war a laaj loolu boppam Bassirou Diomaye Faye moo war a toog jàkkaarloog seetu xool boppam xool fi mu jógee xool parcours am xool éducation xool àddina xool digganteem ak sunu borom moom Bassirou Diomaye fay moo war a toog xool digganteem ak sunu borom xool fi mu jaar li ko yàlla sunu borom bi wan ci boppam.